al ibadatu wal xidma di jaamu yàlla ak maa ngi nuyoo tey wax ne yàlla yàlla nangu ñaan yi te yàlla na ko yàlla boole mbokk mi laaj yomal xiyaam julli la ñuy njëkk laaj wala jikko ju rafet waaw sax na ci xadis yi dina yomal xiyaam bu dee li dox diggante jaam ñi ak seen boroom julli lañ ci njëkk a bu jagee lépp jag bu jagul dara du jag euh, xaris bi ci am ci yoo xam ne bu amee lu ca manqué ñu xool ne ndax am nay naafile yu ko mottali bu dee li dox diggante jàmm ñi seen biir nag moom deret yi la ñuy njëkk a àtte tuur deret si jàmm wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na boo xam ne euh, bu yóbboo oto fenn ñaare bu dëppee day sëf ay bagage yoo xam ne euh, du ko wax boroom oto bi mooy du ko laaj nga xam ne daal day mel daal lam cee sëf su dikkee moom moo koy jël jariñoo muy laaj ateb loolu waaw jëflante sëfoor ak boroom oto day daa war a leer misaal ñu xam ne ab da ko luye oto bi loolu mooy jëflante bi gën a leer borom oto bi luye sëfaru oto bi ne ko luye naa la ko weer wi dee ma fay nangam weer ne wala bis set bi jox ma nangam su ko defee nag borom oto bi di liggéey lu am moom moom bu gaaree oto bi ak bu ci luye ne daal di fay amma ni ñuy jëflante nga xam ne dañ naan bu fekkee dañuy wax ne la eh, luye naa oto bi dama la ko jox nga ciy liggéey dee ma nangam bis bu set wala ay bis gu ne wala weer wu ne li ci dul def yaa moom anam googu moom jaaduwul ndax da ngay liggéeyloo nit te xamut ñaata am te ab ajir mooy ku ñuy liggéeyloo di ko fay daa war a xam ñaata lay am te bu dee ku mel noonu moom xamul ñaata lay am moo tax anam mu jëflante boobu du dagan ci lislaam wala boog mu ne ko jëlal oto bi di ci liggéey loo am am indi bu weer dee ma fay la nangam soo boobaa nag lépp lu mu sëf ci oto bi moom lu si juddoo da ko war a delloo borom oto bi buy dem ak buy dikk lépp loo xam ne oto bee ko liggéey rek da ko war jox borom oto bi su ko defee nag bu weer dee ko la ñu waxante woon wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na yoo xam ne dañuy wax ne alcool da caa nekk ñu di ko jaay ci buti yi yoo ne ay cinq pour cent ci alcool ma nga ca lu laaj ateb loolu waaye yonent yàlla Muhammad di alayhi salaam waxoon na ne lépp luy màndale lu néewam ak lu bareem arab na te wax nañ ne illa bi tax sàngara di màndal mooy alcool bi kon bu ci alcool nekkee mu néew mu bari alcool boobu sobe la kenn waru ko jëfandikoo kon du dagan ci mu xam ne lii ak naan la alcool nekk na ci mu di ko naan loolu dëgërul wallahu taala alam mbokk mi laaj ne na way juróomu jigéen daa wéradi way juróomu góor nag mi ngi dund waaye ne dafa mel ne dafa démissionné ci moom defal tugu dara moom moo ci nekk di ci sonn luy laaj muy laaj luy atteb loolu waaw bu fekkee ne soxnaa ma de moo ko war a taxaw bu fekkee ne man na ko feeg mu ngi koy man daal lam man ci soxna si war na ko def lu mu mënul nag doom ji moom lay war nit boroom këram moo ko war a dundal moo ko war a yor bu borom kër mënut wala amu ko wala nekku fa ay doomam ñoo war a def loolu wallahu taala alam mbokk mi laaj aji julli kanamam fan la yam fi nga xam ne nit waru faa jaar waaw aji julli de kanamam mu li ñu xarim moom mooy bu taxawee bu sujootee fa muy teg jëxam bu tàmbalee fi mu taxaw teg ci tànkam ak bu sujjootee fi mu tegub jëxam loola mooy xarimu aji julli nga xam ne bu doon euh, fu ñuy samp li ñuy tuddee saatir nga xam ne mooy tax euh, kenn bañ jaar ci kanamam bu ko sampee foofu baax na ku jaar ci la féete ginnaaw loola kooku jaarul ci kanam aji julli ji kon daal li nga xam ne moom lay moom lay soxla ci suuf bu taxawee ak bu toogee nga xam ne fi euh, mu teg tànkam bu taxawee ak bu sujjootee fa muy teg jëxam loolu mooy xaree mu aji julli loolu la bañ nit di ko jaar ci lul ngànt am na xarit yoo xam ne ki taxaw lu yàgg euh, waa ji sëlmal moo gën ci moom mu jaar ci kanam aji julli bu defee nag xëy na war a leeral foofu ne léeg-léeg nag bàkkaar bu bu amee aji julli bi moo moo moo koy gàddu ndax léeg-léeg mooy taxaw foo xam ne euh, jaarukaayu nit ñi la te mën naa taxaw foo xam ne am na feneen fu mën a taxaw mu bàyyi ko fa dem taxaw fi nit ñi jaar te nit ñi amuñ feneen fu jaar furul foofa su booba mooy gàddu bakkaar bi waaye nit ki it bu fekkee ne aju julli ji fi mu taxaw am na feneen fu nit mën a jaar mu bàyyi foofa dem jaar ca kanam aju julli ji ci anam googu mooy am bakkaar waaye léeg-léeg it nag bakkaar tegg ko ci nga xam ne ngànt la benn barab bi moo fi am ñëpp fi la jaar waaye ki julli fi la mën a jullee su booba bi du tegg kenn ndax lor moo tax ñu def ko waaye daal lu mat moytu la waaye ñoo xam ne daal aju julli gi du caa génne kanamam gépp bu faaw lépp mooma li muy soxla si julli gi daal euh, di ko aajowoo ci ci suuf si loolu mooy kanamam bi nga xam ne euh, kenn waru faa jaar ci lu dul ngànt wallahu taala alam mbokk mi laaj ci tasawuf lan mooy wuutale alxisbu ak al wird waaw li boroom xam-xam yi tasawuf yi wax mooy wird moom day am waxtu buñ ko jëfandikoo di wutal waxtu bu dee xisbu nag amul waxtu ki mën na saa yu ku mane rek mu jëfandikoo ko wallahu taala alam mbokk mi laaj kuy woor koori ngartange yi ndax buñ sonee rek fen naa dog wala daa war a nekk bañ nodd waaw nu sone di ñaare bu dul ramadan dañ koy def lu jiitu waxtu yi maanaa dañ koy jublu wax ne waxtu yi jege na waaye jotugul nag moo tax deesul dog ci sone ci budul ramadan bu ramadan dikkee nag dañuy dañuy jëñ waxtu ñu waroon a sone bàyyi ba dog jot ñu doo ko sone nga xam ne waxtu woowu ñu sone ci lañ waroon a nodd ci lañ waroon a nodd waaye bu dul ramadan moom waxtu yi ñu sone du waxtu dog kon dañuy nit ba noddu ñu door a xam ne waxtu doggan na wallahu taala alam mbokk mi laaj luy àtteeb jaarum aqiq ci masabu malik waaye ci bu malik dag masahib jaaro moom bu dee jaarub xaalis la sunna la lu ñu santaane la jullit bu góor mën na ko takk benn jaaro boo xam ne bu mu ëpp juróom benn garaam jaaro bi nag mën naa am li ñuy tudde fas su mooy lay na ca kaw mën naa doon xaalis mën naa doon per boobu wax ala xaqiqit nag waaye li am solo mooy jëmmi jaaro bi moom takk ko euh, dagan na ci ab jullit mën nañoo wax ne sax na yonent bi sallallahu ko def jaaro bi nag mën naa doon lépp xaalis waaye mën naa ànd ak per boobu ñuy wax aqiq wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na ku faatu bàyyiwul doom bàyyiwul ndey bàyyiwul bàyyi neen daal ay mbokk la bàyyi kenn ku góor ak ku jigéen ku mbokkal ndey ak bàyyi ak ñeneen ñu mbokkal bàyyi muy laaj buñ koy miraas ñen ñoo koy doon bu dee ne noonu la demee day ki mbokkal ndey ak bàyyi ku góor ki ak ku jigéen ki ñoo koy doon yi jël alal ji def ko ñetti xaaj jox góor gi ñaaree jox jigéen gi benn bi wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na dafa am julleeg néew gum demoon waaye nee na ilimaan de ba mu ñëwee ñeenti kàbbale bu ci nekk dafa jàng faatixa ak wasaar jàng ko ci kaw mu laaj ndax nan la war a demee wala déet eh, déedéet warut demee noonu bu malik day jullee néew sant yàlla ak julli ci yonent bi lañ koy tàmbalee ñaanal néew bi loolu lañu ñu def ñeenti kàbbar yi door a sëlmal eh, jàng mi dañ koy yelu kenn du ko jàng ci kaw wallahu taala alam mbokk mi laaj ku ko tekkil bayt bi sëriñ bi wax yaquudu kun fa yakunu xaaji minka bila xaqdin wala taxaaji sunu boroom dina ma wommatal dina kun fa yakunu mooy sunu boroom bu ne mu am moom kon dogal sunu boroom ya dana ma wommatal samay aajo mu bàyyi ko ci yow kon ci yonent bi ci lu dul ak noonu waaye ci lu dul ak dàgge sante ci lu wallahu taala alam mbokk mi lañ nee na mannequin yi nga xam ne tailleur yi wala dañ ci natt yére yi ñuy yére jaay ngir ñu xam ni mel mooy dañ koy tarifé ci dëkk bi muy laaj lu tax loolu waaw xam nga nataal loo xam ne dafa am ruux daf ko moom takk ndeer moo daganul daganul ci ab jullit lépp loo xam ne daa am ruux nga netaal ko ci anam goo xam day am jëm loolu la def ak nit la ñuy defal ku taxaw dañuy wax ne loolu buñ ci buñ ci dindi woon nag luy tax lu dund nga xam ne buñ daggoon bopp bi doom am bopp xëy nañu mën a wax ne woon naa nekk waaye boo ne jëmm cër yi mat moom daganut daganut lépp lu am ruux muy nit muy mala ñu wutal ko nataal boo xam ne mu jëkkam lay doon maanaam nga xam ne day am jëmmu boo ko tegee tey mun am takk neer loolu da doon buum wallahu taala alam euh, mbokk mi laaj li sunu borom wax ne inna ba'da dhanni ismun yenn njort yi bàkkaar la mu ne kañ la njort du nekk bàkkaar mooy njort lu ñaaw njort ab safaan ci nit loolu bàkkaar la bu fekkee ne amoo ci benn mandarga bu leer gis nit rek daan ne naa ne mi ngi def lu bon te mu benn fit mu benn màngal loolu lu xaraam la waaye boo jorte ci mu aw yiw loolu jort loolu nekkul bàkkaar li wóotale baatub ismu ak baatub dan bu it dañuy wax ne dan bu moom mooy bàkkaar yëpp bu nit ki tayeg bu mu tayut ismu nag bàkkaar boo tay lay doon wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na koo xam ne da doon julli bi mu amee ñaari rakka war a waaye mu jóg taxaw nee nan lay defaree julli googu ba julli lu baax waaw bu fekkee jóg na ba taxaw de ba tàggale ko bëti woom yi bëti woom yi tàqale ko suuf ak loxo yi su boobaa day àggale julli gi bu dee julli ñeenti rakka mu tekkee ñaari rakka bu dee benn ñetti rakka mu tekki benn bu noppee ba taaya ba noppi ba sëlmal defe ko nag mu sujootaat ñaari sujoot baa mu waat taaya ji door a sëlmal wallahu taala alam mbokk mi lay nee dañoo wax ne bu kuy julli bay taayataaju mujj sopp nañ mu ñaan mu ne nag bu dee aji ñaan ji moom déggut arab ndax sañ na koo ñaan ci làkk yu mu dégg ak ndax bu dee làkk woow la wax ndax du yàqu julli ki ak bu fekkee ne ñaan nga daa dëppoog aw bayit ndax sañ naa tari bayit wa waaw sopp nañ de taay ju mujj ñu ñaan ci moo tax taay ju mujj mooy gën a gudd taay ju njëkk ndax taay ju njëkk taay rek laa yem ci bu dee taay ju mujj nag bu taay jeexee day am salaatu ala nabi sunna la waaye sopp nañ aji julli yi ñaan soxlay àddina ak soxlay àlaxira li gën mu def ko ci arab waaye su ko mënul mën na ko def ci làkkam jàng ñaan googu ñaan ci làkkam tekkiwut ne day wax ju génn julli gi ndax ñaan ci gi la bokk kon da koo mënta wax ci aw arab mu wax ko ci làkk yoo xam waaye nag dañuy fere moom di jàng ay bayit moom kon bu dee ñaan na doon wesar wu ñu ñaan waaye bu mu doon ay bayit wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na ilimaan joo xam ne bi muy julli dafa juum am lu wàññi ci julli gi ba war a sujjóot xabla nag am ñu ne ci biir jàkk ji am ci biti jàkk ji bi nga xamee ne nag ilimaan jaa ngi sujjóot xabla salaam bi mu kàbbaree maanaam ki jot dafa dafa kàbbar waaye nee na loolu nag nit ñi xamuñ comme ni ñuy lu ñu def daal muy laaj ndax jotlikat bi daa war a kàbbar foofu wala déet waaw loolu ci julli gi la bokk ci julli gi la bokk kon su ilimaan defee ki doon jot li te kàddu ilimaan jotul sëpp sañ na ko dagaan na mu jotli ko ni mu doon jotli julli moo tax yu bunt yooyu yoon lu ci gën mooy nit ñi di dugg ci biir jàkk ji di biti jàkk ji moom ngant rek sora dugal nit te na doon koo xam ne na xam ginnaaw de tolloole na ci bitti gisul ilimaan na fexe ba xam nag ak tey julli xam ne sujjóot am na lu ñuy wax xabla salaam wala baada salaam bu xamee loolu bu déggee foofa ñu dem ba sëlma def ci déggaat allahu akbar dana xam ne kon dañuy dañuy sujjóot moo ànd ak ñoom sujjóot wallahu taala alam mbokk mi laaj nee na dañoo xëyee fii bisu ajjuma di dem poroxaan nee na biñ demee ba romb Kawlax am dëkk buñ toll ñuy xutba am ñu ne taxaw julli am ñu ne ajjuma warut leen muy laaj ak teb loolu waaw xëy tuubaa gi ñu wax day di tukki ginnaaw bu fajar jotee moom dañ koy sib ginnaaw bu fajar yi ajjuma xasa jot rek sib nañ nit di fa jógee te di tukki ndax day tax ajjuma teggiku bu fekkoon nag dañoo nekk ba tisbaar jot zawaal jot ñu génn moom day xaraam day xaraam ci ñoom ginnaaw nag liñ def luñ sib la waaye bañ xasee génn moom ajjuma warul leen kon buñ tolloo dëkk boobu buñ taxawee julli baax na bu ñu demee ba gi jul tis bari baax na waaye nag daf na lu sib moom wallahu taala alam